ngeen ko. loolu eh boo bëgg de daa ba mel presse ba ngi noonu presse ba ngi noonu. waaw. maa ngi ziar waaw. pour la première fois xanaa xanaa salaamaaleykum ñun ay jeunes lañ barke Seydina Mohamed amuñu lu dul Sénégal Macky Sall Amadou Ba Ousmane Sonko Diomaye ñun ñëpp ñoo bokk réew mi changement leen bëgg te changement jeunesse moo koy def. waaw ñun Macky rek la ñu topp Mohamed. Macky rek la ñu topp kenn fayu ñu Souleymane Ndiaye kenn fayu ñu Macky la ñu topp ay ndaw la kenn fayu ñu xoolal Macky kese la ñu topp kii topp ñu kenn fayu ñu. waaw baax na li may wax rek mooy que ni Omar. Omar li may wax ndeysaan tey muy tàggatoo ak ñenn ci sénégalais yi war a dem lii gis ko noonu ñenn ci sénégalais ñu ngi ci daw ma ngay wutale fii sa mbir lan la la président moo dem looy jooy non ah, tàll mi dem jërëjëful mu dem ba mënta ñàkk nag firawna dem na firawna alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin firawna sall dem na firawna dem na firawna dem na ngay wax ay yëfam ma ngay wax kenn ku nekk ngi wax Macky Sall ma ngay wax kenn ku nekk président dem na ah ngeen gis ko noonu waaw. Son excellence va nous manquer. le Sénégal. Les 12 ans de Macky Sall, Eh, Diomaye Faye lenn laa koy wax ah lenn rek laa ko bëgg wax dig si bet bu mu war a dindi bu mu ko dindi ah, billaay wa na dem na dem na dem na mu ngi dem mu ngi moom mer mer président boogaa coofe saafay bee mu dem yàlla fa yow jëm dañoo sonn na dem dem dem ñu Sonko lañ jëm Bassirou Diomaye na dem Macky Sall jërëjëf Macky Sall jërëjëf Macky Sall mag yi jërëjëf jomaay rek la ñuy topp ba tey li may rek Omar mooy direct bi leen toppaloon ngeen gis ko ah président Macky Sall dem na tey demu président Macky Sall fee loo si jàngat en tant que citoyen Omar ki nga président Macky Sall mi doon jëm fi nga xam ne moom mooy moom mooy Mermoz ah, man. bëri waaw bëri 12 ans de Sall. su barke may leen ma ma ñëw dama ne Fadel Niang président Macky Sall li mu fi def kenn du ko fi def lii tey dañoo woor bàyyi li ñuy def ànd ak moom toog di ko xaar président rek la ñuy topp maa ko wax man bëri laa ba Macky rek la ñuy topp président rek la Macky defaru fi dara defaru fi dara président rek la ñuy topp Macky rek alhamdulillah Rasulullah def fi dara dara def ko fi mais grand ñaari baat lay wax mais wax dëgg yàlla Macky Sall ñoo ngi koy ñaanal yàlla fa mu jëm yal na ko fa yàlla defal jàmm booy bi fi toog tamit yal na ko yàlla defal jàmm ndax Macky Sall ci soxlaay réew mi rek la doon dox te tamit soxlaay réew mi lañ bëgg mu dox ci tëje tëje tëje la doon fi def di jàpp ci tëje rek tëje loolu la xam tëje boo nee tëj na leen sama doom liggéey rek boo nee xusi nga sama doom mu tëj boo nee KM ne koo la bu ñu ma tëj la merci excellence tu as qui a parti mais on donne courage qui reste merci jërëjëf sala jërëjëf Macky Sall jërëjëf jërëjëf kaay ba tey li may wax ku nekk ke ngi wax ñenn ñi na Macky ñenn ñi ne jërëjëf 12 ans président Macky Sall bu tey mu tàggoo Sénégalais loo yëg waaw euh, lu ñu mën a wax mooy wax dëgg fa yàlla président Macky Sall liggéey na fi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax maintenant on un nouveau président qui s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma il va changer ce pays il va changer ce pays je le Sénégal va changer bientôt vous allez le voir. incha allah changement bu leer rek changement bu ma ne xoolal Sonko Diomaye ma waaw naa trop kontaan naa si mag ay sa Faye. tey ans de président Macky Sall. ah boo ko doon defal tey jii évaluation bi. naa trop si moom liggéey na dëgg fa yàlla dama kontaan ja dinaa si jàpp man daa Macky ba mu toogee ba nii ba ma ñëw 2012 ba nii Macky laa àndal. ko nee mooy taximaan bi ñu jàppoon. ah nee na mooy taximaan bi ñu jàppoon. bi ñu jàppoon. loo la maa gis ngay jooy kaay wax ma rek looy jooy kaay ñu waxtaan rek. kaay rek ñu jooy di dem ma ngay gisuma eh. kaay kaay kaay. kaay ñibbi. waa Kaolack nangaan mbir na bàyyi. Eh. asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla. ñu waa Dakar ba. waa maa ngi sant bu baax di julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni lépp lu am moo tax ñu ñu binduñu li li lii nii wax dëgg yàlla dañ ko yàkkamti woon bu yàgg bu soñoon sax élection du am loolu toxal loolu ñu ko wax mooy am wax dëgg yàlla ak gouvernement am ñu àndat Diomaye na na toog ak ñoom Sonko ñu wàññi dund gi béykat yi gis seen bopp commerçant yi gis seen bopp njàngkat yi ñi jàng seen bopp Sénégal yëpp wasalaam. jërëjëf jërëjëf gërëm gërëmal ñëpp li may wax rek ah ah. ah. ah ñun mooy réew mi neex ba ñëpp yëg ko barke alxuraani karim Sonko rek. dañ koy ñaanal guddi fan ak weer mu teel ñu. waaw Sonko rek waaye Sonko jamaa si rek. ku ma am ndey ku ma amul ndey yàlla bi. bilaay walaay bëgg nañ la. Oh! ma ma ma ma ma ma ah. Sénégal mel noonu rek jàmbaar la. wallaay jàmbaar la parce que lii rek xamante ne fii lay jëm. balu tàkk jaas di jóg yi la baaxoo. kon kii toog kon yàlla yàlla dafa jot kon yàlla may ko ndam ba liñ ndam ci moom suñu borom motalee ko quoi. am na <laughs> na problème jàmm rek am. waa mais Nourou ziar doole ziar gain. mais tey 12 ans de président Macky Sall tey mu tàggatoo ak sénégalais war a ñibbi këram feeram dugg police Diomaye tey noo jàngatee situation bi. mais sant yàlla rek xama rek. réew mi dañ nekkoon ci kaw. nit ñi sonnoon xama rek. dëkk bi kenn mënatul dem ñëpp tiit mais alhamdulilah rabbil alamin gis nga yàlla ay mbiram. yàlla pare na dëmb tey doogu ñëw du dëgg alhamdulilah rabbil alamin tey ba jomaay yàlla fal ko tey mu nekk tey jii ci palais bi Macky Sall nag man sama cin gi laa indaale dama fàtte indaale cin diril ko mu dem yoonam kon baax na baax na yéen a ji yegg na yéen a taa bëggoon a indi cin diril ko ko mu dem Sonko waamee kaay waamee kaay waamee kaay dégguma Omar ba tey li may wax ñu ci direct bi rek ah, ñu ci direct bi tey ñoo doon patriote ñu ngi doon di ñëw boo ci dajal rek da ngay xam ne xol bi sedd na ndeysaan ndeysaan ah ñëw leen ni waay. ku baax nuyu naa la matière. Ousmane Diop. Ousmane Diop. coordonnateur euh, du comité électoral communal de Mbour. tey bi noo ko jàngatee. situation bi mooy je fais je suis la première personne à être arrêtée en février 2021 la première personne. yow la njëkk a man la njëkk a arrêté c' était parmi les quatre vingt personnes yi ñu arrêté mooy jour bi nga ne dañuy dañuy ñëw ils étaient venus pour prendre Ousmane Sonko chez lui et nous nous sommes euh, pour dire que il s' va s' en va pas. fan la la arrêté. c' était devant Sonko mais le, le, le c' est pas ça qui est important ce que aujourd'hui les Sénégalais ont fait montre de détermination ils se sont opposés à un régime dictatorial qui voulait un troisième mandat. qui nous a oppressés, emprisonnés, tués. Aujourd'hui, tout est fini. Nous était maintenant la résistance. Ça veut que la tenacité quand même de ces pacifiés, de ces Sénégalais-là, on n'en serait pas à ce résultat-là. Et Dieu soit loué. Ah, ma jaaxal mooy tey 12 ans président Macky Sall tey mu def ko tey muy bis boo xam tey tiis na ñenn Sénégalais ndax gis naa mu génn ñenn ñi di jooy tey noo jàngatee loolu. waaw mais euh, Macky Sall c'est-à-dire que si les gens l'ont eu aujourd'hui c'est qu'il l'a bien mérité. Parce que jamais le Sénégal n'a connu une histoire pareille. Jamais. Des oppressions. Non, jamais le Sénégal n'a connu une histoire pareille avec Macky Maintenant, c'est ce qui en pleure. Bon, peut-être que c'est leur, euh, gagne, gagne, qui s'en va. Donc, euh, ils, ont, ils ont toutes les raisons de pleurer. Mais nous qui avons subi maintenant les services de Macky Sall, mais nous, nous ne pouvons qu'applaudir qu de, ça, de sa sortie du Sénégal. Félicitations. Amoul, ben, problème. Merci grand. Merci beaucoup. kaay kaay kaay ñaari ñaari baat. waaw kaay kaay yaa ngi ànd rek ci Dakar ba tey situation bi moom. waaw Fadel maa ngi lay ziar di la nuyu di am mbégte ak contentement si président Macky li tax ma am mbégte ak contentement si moom élection ñëpp dañoo waxoon ne élection du am Sénégal Macky Sall ñëw organiser élection yu transparent ki nga xamante ne moom la ki ki nga xamante ne moom la ki nga xamante ne moom la Sénégalais yi tànn muy son excellence Bassirou Diomaye Faye

ñoo tudd. Valérie Bonang. ah euh, sénégalaise. actuellement la situation Sénégal. Euh, très content parce que tout simplement euh, am nañ président xale. léegi ñu dem ci liggéey. ñu liggéey parce que président du teg xaalis ci poste jàmbur. donc euh, ñu ñu liggéey. di féliciter président Macky Sall le président sortant. qui a très bien organisé les élections et c'est la victoire de tous les Sénégalais. donc le travail. c'est le Sénégal qui gagne. merci loolu. maa ngi tudd Ami Diagne. foo waaw looy bëgg na wàññi na programme yi école yi rek sonn waaw leçon yi mat bi PC bi ko dindi ci lañu topp yal na fi yàgg te wér yal fi yàgg te wér yal na ko yàlla may fii fan gudd te ànd ak wér gu yaram ñu ki lañu topp ah, léegi xale lañu wax hmm. ngeen bàyyi naar bi te liggéey am ngeen président xale bébé ki lañu topp xale waaw waaw waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Modou Diop dëkk Saloum waaw maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla dalal ko waaye liñ koy ñaan liñ koy ñaan mooy na gëstu mbay mi gis nga bu fekkee mbay mi suqali na euh, taax yi fii kenn du fi nekk ah, ñëpp dañuy dem mbay yi ah, réew moom mbay moo ko yor ah, na jóg ci mbay mi yàlla ko yàlla dalal ci jàmm Baye Laye Baye Laye tey situation bi voilà dañoo ñëwoon justement pour réitérer sunu engagement si président Macky Sall gënga ko Euh, dalal tamit le président bi nga xam ne mooy le président Diomaye yàlla suturaal ko si li nga xamante ni moom la engagé ngir fa mu bëgg a jëmeel Sénégal. d' accord ma doon defal bilan wu 12 ans Macky yi lan jàngat bi lay doon. voilà bilan wu 12 ans Macky Sall xam naa ne xam na ñëpp gis nañ ko parce que ku jóge tey Tëngéej non bul wax loolu après nga jël yaay wax ku jóge Tëngéej wala ku jóge feneen da jël terre boo jëlul terre da ak leneen ak leneen tey su ma waree taxaw fii di ko wax amaana dina bari. d'accord ñu tënk rek damay dellu damay daggal. gis na lu ñu li manqué woon Sénégal lu bari am na Sénégal tey tey stade dañ doon jéggaane di lojee stade léegi on a des stades hors norme yoo xamante ni dañ koy abale sax ñeneen ñuy ñëw di fi recevoir. d'accord jërëjëf eh, eh, eh, courant coupeetul gis nañ li mu def ci énergie. gis nañ li mu def ci infrastructure des stades des autoroutes des ponts. tey boo gëmmee wala nga taxaw fii tey di laaj président Macky Sall lan la liggéey damay jàpp ne yow nekkoo woon Sénégal mais lool loolu mooy dëgg mais tamit nag voilà maa ngi lay siyaar maa ngi lay magal maa ngi tudd Ibrahima Gueye Ibrahima situation bi tey noo ko jàngatee nu ma ko jàngatee mooy xool sedd na sénégalais yi libéré nañu dañoo nekkoon ci nootaange bu metti ku wax ñu rey ku wax ñu tëj ku wax ñu yóbbu kaso sonal ñit ñi est-ce que amul lu ma la lekk dëkk bi doxul balaa ngay tabax dëkk bi da ngay tabax waa dëkk bi boo tabaxee ay tali ak i pont ak i stade dëkk bi xiif amul sens li ñu bëgg lenn la ci Bassirou Diomaye fay mooy king bi yàlla ko yàlla attanal yéen gi mu doxal mbir mi comme ni mu ko war a doxalee mbay mi na dox na napp gi dox gis nga ko na càmm gi doo nañuy ñow di solu na ñëpp taxaw pour defar Sénégal parce que Sénégal du ñoom ñoo koy defar ku bu kaasu azote nga for duwal ci poubelle ñëpp jàppalante lii la ñu gëm Macky nag def na fi defu fi lu mu def lu mu fi deful moo ko ëpp lu mu fi defar lu mu yàq moo ko fi ëpp na dem na dem su ma amoon ci dama koy diri topp ko. jërëjëf ku baax. waaw Fadel ñoo ngi lay ziar. baam nga ñaam. yàlla alhamdulilah Ibrahima Cissé. Ibrahima yaa ngi ah, de président Macky Sall. waa 12 ans de président Macky Sall ñu ñaanal président Macky saal fi mu jëm yàlla na fa yiw yàlla jëm di encouragé président Diomaye Faye mu dal ak jàmm yàlla may ko li mu bëgg ci réewu Sénégal yàlla may ko mën ko réaliser loolu moom la ñuy ñaan. voilà tey boobu loo ñaanal président Diomaye lan lay doon ndax yan bi diis. waaw di ko ñaanal réussir rek te te bu yàkkamti bu doom korite gi ginaar manqué rek ñu ne président Diomaye Faye la eh. ñu doom tabaski xar manqué ñu ne président Diomaye